may daa wér day wér ba pare yow yaa ko yow dégg naa yow wax kee moo koy wax loo kooku kee mooy Mbaye ndekete. kii de li may wax bu ko waxee gaañu. yow ndekete yow yaay Mbaye Gueye Faye maam Ndiaye looy wax sa fans yi da ngaa bëri ay fans. Sénégal samay fans la dañuy nodd. <laughs> te de. waaw léegi nee nañ ay moom boo ko xoolee sax xam ne moom moom logique bi ndax bi mu koy wax mi ngi ñàkk. moom ba pare laamelam bi daa lu xaw a dugalal laamel bi dafa mel lu xaw a tegloo. moom nag li dama koy dama koy dama koy ñaanal nag yàlla parce que li koy wax loo xamul. moom li ko wax loo sax xamu ko. ñàkk a jaay day wax loo nit. yàlla na ko yàlla soppi. jëflu la nag. Ah. la xëy rek du xosee produit nii muy poussière. te jaayoo ku ne la ñaata rek da lay jëfurloo boo xoolee dugg si tik bi gis maam Ndiaye maam Ndiaye maam Ndiaye. Uh-huh. bu yàggee nga tam ko nag moo tax ñuy jëfur nag di wax lu leen saf nag. waaye dañuy arrêté. commentaire yi commentaire yi waaye commentaire yi liñ ko ci yàq leen <laughs> commentaire yi nee nañ Mame Ndiaye lañu bëgg Mame Ndiaye la Sénégalais yi bëgg man lan lañ koy waxee naa boole nag pattam gi mu bo defoon ak organisé bi parce que loolu moo gën mënoon na boole pattam ak organisé am concentré wu ci Ndiaye moo gën muy dugg ci man ndax xam naa li mu wax lool bu jàkkaarloog man dama ko wax bu ñu jàkkaarlee mu wax ma ko ci suuf lañ koy foree. da ngay sonn. nga dem sa diw weer. waxtaan moo gën muy dugg ci man ndax xam naa li mu wax lool bu jàkkaarloog man dama ko wax bu ñu jàkkaarloo mu wax ma ko ci suuf lañ koy foree dangay sonn. kay nee na yow danga ni poussière yi mooy poussière nan nga ko waxee. dama ne la nga dem sa diw nga sa diw weer. gisoo ku ne la ñaata say diw varié produit bi produit bi varié ci biir bu ko diwoo problème ñuy war a nga xool retour yi ñëw ba ne naa la sama yaram bi yàqu na boo xoolee say produit amoo assistante foo jaay sa xool tàng nag boo duggee si tiktok bi def ni gis naa jaay sa bopp sa xool neex kenn jaayul moom kese mooy jaay. jàmm yàlla jàll boo ko jalee mu jàll jàll. waaw jërëjëf jërëjëf.